village artisanal di bërëb bu fare ca Soumbédioune ñu fay defar bépp article bu jëm ci aar jamono ji ñu tabal leen jëwriñ ju yees moo waral ñu teew fi ngir xam naka lañ ko gisee fàllu Silla di njiital maroquinerie ba di ci àddu ñëwagu fi nag waaw ñëwagu fi xëy na day installé wu ba pare pour doog fi mën a ñëw mais ñëwagu fi mais ñu ngi koy tendre la main di ko won ni soyez les bienvenus au ci ministère bi ni mu fi ñëwee tamit ñun wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko ñu ngi koy xaar di ko déglu di xam tamit ndax nit ki moom balaa nga wax ci moom il faut nga toog ak moom wala nga dégg ko mu wax ñu xam fan la jëmal secteur bi pour ñu toog a mën a ànd ak moom tamit xam nan lañ koy accompagner ci liggéey bi daal. ci jamonoy Covid 19 bi moo waral seenub chiffre a wàcc bu baax loolee di ay kàddoom. waaw jënd ak jaay bi moom xam nga ci moment yi moom kenn du wax neex ndax depuis Covid bi mu duggee ci village ba léegi moom kaaw moo fi nekk gis ngeen gisal ngeen ko seen bopp plus 3000 mille 2500 personnes fu mu daan liggéey nga gis tey ni mu mel kon xam ni njaay njënd moom dafa wàcc dëggantaan fi mu ne nii moom waaw ndax Covid bi moom moo ko gën a indi mais avant moom wax dëgg yàlla daana tane ndax nit ñi moom fu ñuy xëy buñ ne fa dara nekku fa rek bu yàggee doo fa gisati kenn booy ñëw di fa gis kenn rek kon xamal ni dara nga fa. bi ñu ko laajee ana lan lay xaar ci jëwriñ bu bees bii di Amadou Ndiaye lii la ci tontu. ministre bu bees bi ñu ngi xaar ci moom li ñuy xaar ci moom rëy la ndax dañu jox un ministère fort. te ñu ngi koy wut boobu ba léegi ñu ngi koy doog a am ci loolu nag moom dañ ciy remercier président ndax ñu biñ ko yuuxoo dégg nañu artisans yi ni dañoo bëgg un ministère fort kon moom dégg nañu ba defal ñu un ministère fort kon moom ñi ngi xaar rek mu am ouverture xam ni artisans yi ñoom bëgguñu lu dul ku ku leen di déglu di waxtaan ak ñoom nga xam ni tamit ay nit ñu am valeur lañ ndax métier moom képp ku ko am toog fonk ko rek homme de valeur nga kon dañuy seenu ci xaar ci moom mu am ouverture pour a déglu artisans yëpp pour ñu xam tamit ci fan la jëm tamit ci secteur artisanal bi. waa ji nag di Pape Abdoul Fall di njiital sculpteur yi di xamle ni la ñuy xaar ci jëwriñ bi moo di. mu mottali yéene bi nga xam ni moom la Dame Diop amoon eh, te muy jox leen ay enveloppe bu ndàmpaay ci Covid 19 bi. li ñuy xaar ci moom mooy comme li mu fi fekk war koo yeggali loolu la ñuy xaar ci moom parce que dafa fekk ni Dame Diop mi fi jóge dafa am lu mu doon liggéey ak artisan yi. mooy ci wàllu fonds Covid bi bi président Macky Sall génne woon muy 1000 milliards waroon ko jox sénégalais yi pour ñu suqaliku léegi moom doon na ci liggéey moom Dame Diop ba waroon ñu jox lim ñu war a jox comme yeneen secteurs yi ni ñu leen joxee mais dafa ne woon moom enveloppe bi pare na pour génnee li nga xamante ni mooy fonds Covid bi ci artisan yi mais bi muy dem euh, daf fi bàyyi loolu maanaam loolu foofu la toll woon mais Amadou Ndiaye mi ñëw nag. li ñu bëgg ci moom mooy mu yeggali loolu maanaam mu jël enveloppe bi continuer liggéey bi ndax gars yi mën a suqaliku parce que dafa metti village artisanal doon bërëb bu ñëpp taamu ci lu jëm ci wàllum aar jamono ji ñuy dund ay jafe-jafe ci seenub liggéey moo waral ñuy sàkku ngir ñu gestuwaat leen ba ñu gën di am mbégte di xëy ci boobule bërëb